borom yàlla nañu yàlla may yàlla cheikh asbarham mu nuyu mbokk internet di koy seetaan cheikh bi nuyu nañ la euh, ñu ngi leen di fay alhamdulillahi bi nixmatu tatum salihat mm-hmm. allahumma inni nas'aluka min kulli hamin farajan mm-hmm. wa min kulli dihin mahrajan mm-hmm. wa min kulli husrin husran wa min kulli fahisatin sikhran wa ala كل خير سبيلا برحمتك وعلى آل حضر ومخدازم وسلام ذات وسلام لا إله إلا الله أول وآخر وظاهر وباطن والصلاة والسلام على مولانا الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم À cette veille de Ramadan, je demande pardon à chacun et à chacune d'entre nous, mm -hmm. puisse Allah nous couvrir mm -hmm. de sa miséricorde image jërëjëfee Cheikh Ahmada Tidiane Serif jërëjëfee Cheikh Ahmada Tidiane Serif jërëjëfee Cheikh Ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu ba ma gërëmee sama sëriñ ba Cheikh Ahmada Tidiane Serif radiyallahu anhu boole naa ci ki nga xam ne moo donn maamam mu yonti yàlla Muhammad bi nga xam ne moo tax ñu xam seex mm-hmm. maamam ji nga xam ne moo ko jox lépp lu mu am mm-hmm. maamu seex boobu di yonti yàlla Muhammad balaa ma koy wax dinaa yàlla ndax oh. lépp yàlla am rek jox ko yonent bi uh-huh. yàlla nekkoon na ci kën dem ba bëgg ñu xam ko mu amal am mbindeef mbindeef ba di yonent waaw boo tax ñi xam yàlla mm-hmm. kon yonent boobu laay jël maasale ko at këru kilifa diine yépp yu gëm Seydina Muhammad Touba maa ngi leen di ziare. Mhm. nuyu naa xalifa ba maa ngi ziare Canaba. Mhm. nuyu naa xalifa ba. Mhm. maa ngi ziare Tiwaawoon nuyu naa xalifa xalifa maa ngi ziare Medina Baye nuyu naa xalifa ba maa ngi ziare Léona Niassène nuyu naa xalifa njabootu Obadien ba bi. waaw at laay ni képp kuy taxaw ci Sénégal di kilifa diine rek Cheikh Asbrahma jox na loolu loxo émission tey bi nag. Ah. maa ngi koy may ñi nga xam ne Lamine. ndeysaan ñoo wàññeeku woon ci yu fi jotoon am ci bëgg maanaam seen réew avancé muy. hommage boo xam ne je fais un hommage à des dignes fils de sénégalais Lassana Diarra Baye Fallou Sène mm-hmm. Khadim Ba mm-hmm. Serigne Fallou Sall mm-hmm. Bakary Diémé ba si ñoom ñëpp ndeysaan émission tey bi oh. ñoom laa ko may labin di wax yal na yàlla def fañ tëdd yal na sedd guy mm-hmm. ndax xeex nañ ci réew mi xeex moo xam ne mm-hmm. tey lii am tey gannaaw yàlla mm-hmm. ñoom hommage boobu laa leen di rendre tey si émission tey bi ndeysaan boole ko seen yaa waajur yi ñu yàlla may leen xolub muñ amiin lépp loo xam ne luñ xeexoon ci réew mi rek yal na yàlla def mission boobu yal na ko gouvernement bu bees bi accomplir ba yéene goñ amoon ci Sénégal yàlla mottali jërëjëf labin vibrant alhamdulillah Cheikh As fàttewu leen benn yoon ci ay kàddoom te boo seetaanee sax le président Bassirou Diomaye fay boobu ba léegi mi ngi leen di mentionné ci ay discours am cheikh bi tey balaa ñoo dugg ci wàllu tur yi ngay xaalu ah. balaa ñoo dugg ci horoscope yi mhm. température tension bi di yéeg mhm. dama am loo xamante ni mbaquus la wala sax surprise la ci ah. biir émission bi sëñ bi mhm. ndax yaa ngi fàttaliku ka nga xamante ni amoon na fi feebarum xel waaw nekk ba bitim réew. Mhm. njabootam boole la ak moom. nga jëflanteek moom jëflante bu rafet. Mhm. ndax yaa ngi fàttaliku jëmm jooju. dëgg ndax yaa ngi fàttaliku ka nga xamante ni fayoon na yaa ngi fàttaliku yaa ngi fàttaliku tey. Mhm. kenn ci ñoom laa la indil. ngir waxtaan. ndeysaan ma dugalal la mbokkam. mu ko jege mu la boole woon ak moom. ngir témoignage ci biir émission du ci ñàkk. dëgg la